الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bokk yi nuy teewlu ci silatu rahim askanu jaxate noo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell ci nuyoo yi te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amaat mbégte ci dikkaat ak yéen ci seen jataay bii di kaay jàng nu ciy jàng téere bii di laxdar yu tey di sunu bindub juróom-ñetteel mu tàmbalee ci faslun faraidul wudu yi sabon faslun lii ak teqaale la faraidul wudo yi faratee njàpp sapaon juróom-ñaar la kon tey bindu tey bi faratee njàpp lañ ci jàng li tax mu njëkk a jàngale faratey njàpp ci faratey cangaay nag euh, loolu borom téere bi la ci roy alquran ndax alquran jàpp la njëkk a jàngale ci ci sangu Euh, soo demee ci suratu maayida suñu borom dee wax ne yaa ayyuha alladina amanu ida qumtumu ila salaati faxsilu wujuhakum euh, ba ci fi muy waxee wa in kuntum junuban fattaharu kon foofu suñu borom njàpp la njëkk a ci cangaay moo tax kon boroom téere bi di roy alquran ci loolu tàmbalee ci jàngale faratee njàpp kon faraidul wudu yi faratey njàpp sabon juróom-ñaar la nee na njàpp juróom-ñaar la an niyatu wa xaslul wajhi wa xaslul yadayni ilal mirfaqayni wa masxu rasi wa xaslul rijlayni ilal kaabayni wa dalku wal fawru an niyatu mooy yéene wa xaslul wajhi ak raxas xar kanam wa xaslul yadayni ak raxas ñaari yoxo ilal mirfaqayni ba sa ñaari conce ya ba ca ñaari conce ya wa masxu raxsi ak masa bopp wa xaslul rijleeni ak raxas ñaari tànk ilal kaabayni ba ca dojoor ya waddal ko ak ragg ga wal fawru ak gaaw ga kon juróom-ñaari farata yi moo nekk noonu ba ci njëkk mooy yéene yéene nag ci njàpp fi ñu koy defee mooy booy raxas xar kanam kon booy raxas sa xar kanam ca raxas bu njëkk ba moom ngay lëkkale ak yéene ja yéene nag euh, ci ab xol lañu koy defee maanaam da ngay fas ci sa xol euh, sag jublu li nga jubloo def mooy njàpp mi kon da ngay fas ci sa xol ne fas na ma yéene jàpp Euh, wala nga wax fas na ma yéene sàkkoo daganlu li ma toj mu ndaw mi daan tere ñaar yooyu loo ci wax rek baax na kon yéene ci ab xol lees koy defee waaye dee su ko tudd ci aw làmmiñ ñaareel ba mooy raxas xar kanam raxas sa euh, ba mu daj te booy raxas xar nga nga bàyyi xel nuux nuuxi bakkan baag ak roñ ya ak rontuñ ya ak euh, bépp ñagas-ñagas boo xam ne nekk na ci xarkanam gi rek nga bàyyi ko xel bu baax a baax ba fépp tooy ndax farata moom day tooy waaw bu fekkee am na dara lu ca tooyul rek du mat moo tax kon booy raxas xar kanam bàyyi xel bu baax a baax noox nooxi bakkan ba ak yépp bu ko defee nag xarkanam moom guddaay bi mi ngi tàmbalee ci kaw bi muy fi karaw baaxoo sax foofu la guddaay bi tàmbalee yam ci daaju sikkim bi yaatuwaay bi mi ngi tàmbalee ci euh, nopp yam ci nopp kon loolu mooy xar kanam loolu kon nit ki da koo war a raxas ba mu daj ba ca topp mooy raxas sa ñaari yoxo ba ci sa conca raxas sa ñaari loxo ba sa conca kon loolu mooy ñetteelu farata bi ñeenteelu farata bi mooy masaa bopp masaa bopp masaa nag foo dégg de xamal ne euh, du tooy lu ñu masaa la raxas ak masaa bokkuñu bu dee xar kanam ak loxo ak tànk ñoom dañ leen di raxas waaye bu dee bopp dañ koy masaa masa nag mooy ni nga koy defee mooy da ngay tooyal sa ñaari yoxo ba mu tooy rek nga daal koy masa ca kaw bopp ba dem ak dikk mu jeex noonu rek lees di masaaye waaw da tooyal sa ñaari loxo rek teg ko ci fi karaw gi tàmbalee fi karaw baaxoo sax rek ndax li tax ñuy wax fi karaw baaxoo sax mooy mooy amaane nit ki leel xam nga ko leel moom xar ah, kawaram mën naa tàmbali ci Euh, digg bopp bi moo tax kon kii masaa moom fi karaw baaxoo sax rek fa lay tàmbali fi nga xam ne daal miin nañ ne karaw doomu aadama fii lay tàmbalee sax ci kaw bi foofu rek lay tàmbalee masaa mu wàcc ba ci ndongam mu daal di dellu si waat mu jeex euh, juróomeel bi mooy raxas sa ñaari tànk ba ci say dojoor kon raxas ñaari tànk yi ba raxasaale ñaari dojoor yi euh, mooy juróomeelu farata bi juróom benneel bi mooy ragg ragg nag bu ñu ko waxee rek mooy fépp foo sotti ndox rek nga jaarale fa sa sa loxo bomb ko ah, yi nga xam ne daal dañ koy raxas lu mel ne xar boo sottee ndox nga jaarale fa sa loxo raxas ko bomb ko naka noonu ñaari yoxo ya booy sottee ndox nga jaarale fa sa loxo bomb naka noonu booy raxas tànk it foo sotti ndox nga jaarale fa sa loxo bomb ko juróom ñaareel bi mooy fawru mooy gaaw ga am ñu koy wax ci téere yu mag yi euh, muwaalaat muy jokkale njàpp ma fawru nag boo ko déggee rek mooy njàpp mi yépp nga def ko ci benn jataay te bañ koo dagg dagg mu ñaaw maanaam nit ki dañoo bëgg buy jàpp bu xasee tàmbali balaa jógee fam doon jàppoo rek na njàpp ma yegg waaye tàmbalee am njàpp raxas loxo Euh, sël mu daal di dem doxi say soxla ba sa kanam woowu nga bëgg a toog ñëw àggale loolu kenn du ko def moo tax fi nga toog di jàpp rek bala ngaa jug di defi lenn na nga fexe ba njàpp mu àgg kon loolu mooy juróom-ñaari wasu yi wa sunnanuhu xaslul yadeeni ilal kuayni inda shuruuci wal madmadatu wal istinsaaqu wal istinsaaru wa raddul masxi rasi wa masxul udnayni wa tajdiidul maai lahuma wa tartibu bayna al faraid sunna yi ba ca jëkk mooy xaslul yadayni raxas loxo ilal kuwayni ba ca takku jaraya wala nga dem ba ca fi ñu takk montre ndax mu gën a leer léegi ginnaaw fi ñu takk montre moom yépp xam nañ ko kon xaslul yadayni raxas ñaari yoxo ya ilal kuwayni ba ca takku jaraya fa ñuy takk montre inda surooci fa tàmbali ga muy fa soobu ga rek wal madmadatu ak galaxndiku wal istinsaaxu ak saraxndiku wal istinsaaru ak fiiru wa raddu masxil ak delloo masaa bopp ba wa masxul udunay udunayni ak masaa ñaari nopp ya wa tajdiidul maay ak yeesal ndox ma lahuma ñeel leen ñoom ñaar wa tartibu ak toftale ga baynal di ci diggante farata ya kon sunna yi ba ca njëkk mooy raxas sa ñaari loxo ba fi ñi ba ci fi ñi takk montre boo xoolee loxo bi da nga gis foofu yax fi yax bi yëkkatiku foofu foofu mooy takku jara fi ñi takk montre kon booy tàmbali njàpp ma na nga raxas sa ñaari loxo yooyu ba mu set ñaareelu sunna bi mooy galaxndiku galaxndiku mooy nga seex ndox mi rek gujj gujjal ko ci sa gémmiñ yàbbi ko ñetteel bi mooy sarax ndiku muy jël ndox mi def ko ci sa tenq daal koy xëcc ci sa noy yi mu dugg ci sa bakkan loolu mooy sarax ba ca topp muy ñeenteelu sunna bi mooy fiiru maanaam ndox mi nga dugal ci sa bakkan nga wal ko ci sa noy yi mu génn loolu mooy fiiru juróomeel ba mooy delloo masaa bopp ba kon masaa bi ngay masaa sa bopp eh, dem bi farata la dellu bi sunna la kon booy dellusi rek mooy sunna bi kon am nga sunna bi eh, juróom benneel bi mooy masaa ñaari nopp ya waaw masaa sa ñaari nopp juróom ñaareel bi mooy yeesal ndox ma door a masaa ñaari nopp ya maanaam dañuy bëgg boo masaa sa bopp ba noppi ba bul jàll ci say nopp déedéet da ngay demaat nga nga nga nga nga asaan ndox sotti ko ci sa baar eh, ci sa baaraamu déy ak sa baaraamu sànnikaay daal di masaa say nopp waaw nga bàyyi xel ne lépp lu wax masaa rek xamal ne loolu dañ koy masaa waaye kenn du ko raxas kon da ngay sotti ndox ci say yoxo ci sa ñaari waaraam yi muy baaraamu déy ak baaraamu sànnikaay bi di ci masaa say nopp euh, juróom-ñetteel bi mooy toftale diggante farata ya euh, toftale diggante farata mooy farata yi ni ñu tofloo ni ñu toflantoo noonu nga koy toftalee maanaam raxas xar kanam euh, xam nga ne raxas loxo moo ci topp ak masaa bopp ak raxas tànk kon noonu la farata yi noonu la ñu toftaloo nga toftale farata yi noonu nag loolu na la nga xam ne kon tey Euh, boo doon jàpp bàyyi euh, maanaam euh, njëkk raxas tànk ci loxo wala nga njëkk a raxas loxo ci xar kanam loolu bu boobaa defoo li ñuy tuddee tartiibu baynal it defoo li ñuy tuddee toftale diggante farata kon booy jàpp farata yi it daa war a toftaloo bu defee sunna yi moom day dugg ci biir fara day dugg day dugg ci eh, diggante farata kon lii mooy farata njàpp ak sunnay njàpp jaa ngeen jëf ba beneen yoon insha allah alhamdulillahi alkarim silmilan alastihadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني